pour problème am boo nekkee kilifa boo ñëwee fii dañ koy wax euh, fu jafe-jafe am dana woote laajte seet nan la ñuy régler problème yi te yaakaar naa ne boo fi taxawee loolu dañ ko seede ci région de Diourbel moo ngi fay def liggéey bu am solo ci par rapport ci emploi emploi de la de la jeunesse kon boog ñoo ngi koy félicité bu baax a baax. benn bi le 22 avril 2021 le président Macky Sall avait convoqué euh, conseil euh, présidentiel pour l'insertion et l'emploi des des jeunes. yaakaar naa dépp booba léegi nag lu mu mën moo ko ciy def moo ngi posé acte yu am importance yoo xam ni pour xay uniquement pour xay xale yi am am am liggéey loolu nag ñëpp xam nañ ne euh, liggéey léegi moom yombatul même au niveau international foo dem euh, jafe-jafe liggéey moo am mais nag boo xoolee ba ci biir ñi nga xam ne ñoo nekk ci sur le marché de l'emploi yëpp ñu ci bëri amuñ amuñ qualification ñii dañu am bac wala am BFEM wala sama mbokk bawol bawol yi ku ci am bac rek wala am rek da ngay yaakaar ne dèjà ñaa ngi mën na te or que mën nga am bac wala nga am BFEM mais amoo qualification boo amul qualification ça pose problème kon boog pour insérer day yomb day xaw a jafe kon boog je pense que aujourd'hui avec euh, le centres de formation au niveau des 45 départements monsieur le ministre des finances suñ ci taxawee au niveau des 46 euh, euh, au niveau des des 46 départements je m'excuse Kër Massar buñ ko bu ñu bu ñu yàlla dimbalee ba loolu ñu concrétiser ko former xale yi. ku ku am formation bu dëgër da nga mën a am emploi bu baax même boo amul emploi boo créer sa entreprise danga mën a dem kon boo convention yi nga xam moom ngeen di signé ak ak entreprise yi yaakaar naa ne ñu gën koo organiser gën koo defar yaakaar naa ne loolu moo mën a moo mën a moo mën a créer emploi beneen mooy benn mbir ñaata xale ñoo faatu ci ay fen yoo xam ne ñii ñoo leen di manipuler di leen fen rek te amul dara plus de 60 xale faatu nañ man gis naa koo xam ne yaayam moom rek la amoon ñu fen koo fen fen yu metti mu génn yàlla moom bakkanam te boobu ba léegi seen alal ñoo koy fayeeku ñoom ñëpp kenn ku ne mu ngi fayeeku ñaari million weer amul kenn ku dem ci kër ñooñu dimbal leen wala jàll leen il continue à manipuler la jeunesse encore nit dafa war a am ngor nit dafa war a am lu mu war a am jomb manipuler ngeen xale yi fen leen ba xale yaa ngi faatu ngir yàlla noppi leen parce que mosu leen wax dëgg te la ngeen di wax du dëgg ngir yàlla noppi leen lan ngeen bëgg da ngeen bëgg continuer fen ci loolu ngeen bëgg dundee dootul am de ni ngeen rey incha allah yowmal xiyaam yàlla dana àtteeg yéen te boo leen demee dana leen door ay yar ba ngeen ne ut wéy yaay man loolu mën naa leen ko wax jërëjëf. Je vous